asalaamaaleykum sëriñ bi maa ngi yëkkatiwaat kàddu nuyoo kàddu ziar ñu tibbee sama xol di ko jëmale si jëmm ju tedd ji nga tegal ma it nuyoo ak ziar bi si njabootu sëñ Tuubaa ak nga xam ne yàlla def na yaay seen kilifa seen wasila di yëkkati it kàddu cant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 waajur yi nga xam ne ñoom seeni njaboot wàññeeku ñu ñu ànd ak diine nangu dogal waaye ñu ne ñu saytu si suñu wàllu bopp li xam ne mooy suñu wareef ak wareef ñu ñu dénk liggéey yooyu ngir lu mel ni bañati am ci réew mi man ngay feddalee sama taalibe di la wax ni xam naa man nañ ma xam naa leen ma yéene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 Euh, ma koy nuyu gërëm itam saa koy yebalee dëgg yàlla mu ngi mottali lépp ci sama diggante ak yow di nuyu sa rakk nekk yëpp si ah, Moustapha Moustapha koy nuyu ak sëñ Abdoul Ahad sëñ Mouhamadoun Ibn Abdoul Ahad ibn sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Abdou Samad Souaïbou waaw ah, di nuyu sëñ Moustapha Lakram moom itam naa ko gërëm ko itam ak sëñ Fallou Galas xamee ko Galas Kaltum yàlla def moom la ñu jiital ren am ci yaakaar ak sa ñaan ak ah, sëñ Charga Diallo maanaam sëñ Madické ah, kontaan naa ci fekk ko fi nee naa ko sëñ bi boole woon nañu waaye leer.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 bokk na ci ñuy def guerre bi ngir ñu xool ni ñuy woyofalee réewu Afrique yi ñu mën a jot ci maanaam pepp yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee blé te bu ñu defal mburu ci loolu génn ak yeneen xeetu ñam te tax na tax na ba tey loolu dafa jafe prix yokk lool ñu si sàkku ñaan di sàkku ñaan ci Sénégal mu ko yàlla di yokk téye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 si loolu ñu fii ci Ndakaaru ndax rek ñun ñoo war di ñëw Touba la set waaye boo ñëwee fekk si nag askan wi loolu tam dina nekk lu am am di yónnee kàddu bi foofu di la sant di la gërëm Mbàkke ñu fi yàgg te ànd ak wér jërëjëf Mbàkke bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah alhamdulillahi allazi lam yattaxis waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyyun min az-zulm assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalal sëriñ bi di sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha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 muy lu tar loo xam ne keroog ba mu fi ñëw dugg nañ ko ci néeg bu xat bu tiis boo xam ne ay ràbbak lu sam xel dem ci lu mettital nit ba sëñ gi sëgg julli sax xaw ko mën boole ci dafa xet gu naqari ba lépp lu ñu jàppee loo ko mettital ñu def ko nga xam ne sëriñ bi xam ne ne étape bu la jaar na fa étape bu ne jaar na fa ba dem nga fa ba dellusiwaat waaye fii rek ngeen dégg mu wax ne iza sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa fubuta taarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin zabba an il mahi fi ko jaarale fépp xelam mu sa xalaat dara wala mu dis ci moom waaye fii rek bi mu fi accès ci la xelam dem ci ne daa war a jug rek déclaré jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dox diggam ak loola kon bu yàlla defee ba mu fi agsi ba ba mu bind ci biir xasida bi ne nafaale xayrillaahu fii ndakaaru kulla azan li jarahu makaaru suñ borom tàggale ko loolu bañ génn ko réew mi ba mu dellu siwaat ba mu dellu siwaatee ba agsi fii la wàccaat kon fii barawu Sëriñ Tuubaa ba mu ñibbisee itam ñëpp maase ci teertu ko murit yi ak ñi du ci murit ka ca jiitoon mooy Cheikh Ibrahima Fall ñëpp xam nañ ne mu demee waaye jullit yépp maase ñëw ci di ko ndokkeel ngir del dem jëm dell te dellusiwaat am na ci ñoo xam ne buñ nee sëñ bi ngi dellusi ci gaal gëmuñ ko woon ngir ba mel na moom lañ mas a gis tubaab yi jëndal ba nag dellusiwaat la mu àndaale ndam rëy yëkkate ñaari loxoom yi tëdd yaa dem naa liggéey ba ñëw àndaale loo xam ne du jeexati mukk bu ngeen fi séenit nag xam leen ne loxo bu tuuti bi moo ko moo ko jëf ba noppi nag yëngu ci wax ne lii aw si li lesi uridu wan faxi bi wal waraa yaa mu wax ni am nit fay mboolem la ma fa liggéey kat jëgleewuma ko kenn ku lu xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sama nit waxit na ijjaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamihil xalqi niiraana kon Dakar am na ci je place bu yaatoo yaatu ndax bi ñu dem fi la jaar te bu demutoon du ëndaari ndam li mu am waaye bi ñu bisee tam fi la jëkk a wàcc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 ci jiital Serigne Bakio Faye mi nga xam ne moo la ci seen kanam Serigne bi may la ñett ñetti fan yoo xam ne day ñëw ànd ak ñoom julli àjjuma toog ci kër Serigne Touba ji dundal barab bi ñëpp ñëw fi ngir xatli ko ngir xam ne wala chuma fi la xuma mi jooje Serigne Touba waxoon ci Rasulullahi xar kanam bi ku ko séen rek dana far say njàqare yéemu naa lool ci procédu taalibe yi démb am na taalibe bu fi ñëw. mu ngi tudd alxaaji yàmbi bii alxaaji yàmbi lañ ko te moom sax mosuma ko gis yëkkati ñaari million wax ne damaa dégg nga nag sëriñ bi ma jaay sama oto taxi laa jël ñëw man daa bëgg ma tàmb ci bis bi kon posté fi nit ñi kenn mënta natt fu ñoom loolu lépp nag fi mu ne rek ko ko may kon ñu ngi ñaan mu yàgg fi ci ànd ak di ko jeexale nag ci kàddu yi ma yóbbante ci ganam gii di doomam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 mënta ñaanal kii bàyyi kii ndax lu ñëw te la mu ne yow nag yàlla dafa def sa diggante mu àgg foofu mu xamutul nan lu muy def moo tax mu jéego jéego ñu tedd dem ba ci bariwul Sëriñ Tuubaa jàkkaarloog bi dénk la ko nee na dénkaan lam la ko nag nee na mu ngi koy feddliwaat nee na sam xel lañ ci xam ne dara supp ko ci moom loo soo yokk loolu nag la ko ko may sëddif la ndax xam na ne moom amul soxla si boppam ndax moom mu mën na ci seere ba toog na feeg moom xëy na ren la fi am fukki at ba mu nekkee wër Serigne Touba mës a dégg soxlaam bi mu nekkee Serigne it mës a dégg soxlaam mu ko wax rek soxla si taari bi ak soxla si bindee yi tax te loolu nag mu am weer te yëngu ci ñun ci soxla nit ñi loola lépp lu mu ci déggee daanaa ci def ba def ci lu mu mënut. ñoo na loola nag kon.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 defal la ca nam ba na nga ko bëgg nga amee ko ni li nga xam ne am na ci sa digg moom nee na cant gi ak ngërëm ni ñu ngi ko seeral nag njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ndax xam na ne ko defal jënd Sëriñ Tuubaa tax mu ko moom mu seqal nag kon war nañoo xam ne fii la nekk ci moom dara dara luy nuyu lënt lënt wala luy nuyu lu ko wees lenn lenn loo yaa ngi cee dugg te waxtaanoo cee mu ëpp te lépp lu la ci sant itam lu metti metti itam am na ci boo xam ne àgg nga ci ne ko lu ma ci mën a fekkee dinaa ko def ngir sa jëmm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 na nga xam ne jëflantoo kenn ci dëkk bi ku dul Sëñ Tuubaa Sëñ rek ngay jëflanteen nee na Sëñ mi ngay jëflanteen rek nee na li fi yaay ne foofu nee na wóor sëñ bi lépp loo ko jëfee rek pay gaa ngi sa kanam ma war ko fàttali mooy li fi xew ci réew mi di ay bakkan bari yorot lu ma fukki nit ak benn loolu xam ngeen ne musiba mu ruy la mu wàcc ci réew mi kon président sëriñ bi nee na ngi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 masawu mu ngi ko seqal. yaa ci nawet bi ñu jub suñ borom def ci barke ndax xam na ne fii àdduna si toll crise yi metti na te li ëpp ci li ñuy jëfandikoo bitim réew lay jóge te loolu itam xam nañ ne gis na ci nguur gi ndax mi ngi koy jéem a ngir bañ mu metti ci nit ñi kon nag loolu day mel ne suñ borom day defaat ak junj bu rëy ci ñu xam ne mbay moom mooy lu war a jiitu.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 ñu la ci sant di la ci gërëm ci li ci def waaye di la ci ñaax itam loo ko gën a mën a tam nga dolli ko ngir fii lu si toll wane na mbay mooy li war a jiitu yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf.